yàlla jëppee fen parce que fen mën naa rey nit xam nga yan bu ñu toppoon ci seen fen yi rek ni tey président Ousmane Sonko mi ngi ci kaso bi di servir vingt ans de prison te pourtant ay fen la yan bu ñu toppoon seen fen yi di leen déglu sénégalais yi topp leen ni kon tey le président Ousmane Sonko serait en prison et en train de servir vingt ans de prison parce qu'ils ont criminalisé le viol e toute personne qu'ils ont condamnée sur viol mën naa def ñaar fukki ati kaso démb degg ngeen procureur bi ci réquisitoire am mu ne ñaar fukk at lay laaj ñu tëj ko Ousmane Sonko dont dix ans ferme maanaam ñu tëj ko fukki at yeneen fukki at yi mu def ko comme ci biti maanaam mais ba léegi kaso la ñoom yaakaar nañ ne ay yambaar lañ ko sekkal ñaar fukki at déglu leen yi sénégalais yi laay waxal il faut ngeen déglu procureur bi ñaar fukki at la laaj ñu tej président Ousmane Sonko ñaar fukki at la procureur bi laaj pour ñu tëj ko Ousmane Sonko ñaar fukki at man du ma seetaan TFM kii bind nii xaw ma lan ndaan na El Malick mi ngi TFM El Malick warutoon dem TFM sama waay la nag ku baax la ku yaru waaye bàyyi leen dem TFM parce que TFM l'observateur mënul bind tey ñaawtee fi yëpp après ñu nangul TFM del ko interview dang leen di may visibilité man du ma seetaan TFM et désabonnez-vous de la TFM parce que bu ñu jëlee El Malick tey mu dem may leen visibilité bu subaa ñu teg fa beneen samba boy buy taal réew man du ma seetaan TFM te désabonnez-vous de la TFM arrêtez leen TFM ay bandi lañu désabonnez-vous yàgg naa leen ko wax faram-pàcceg euh, maanaam rajaxeeg euh, euh, voilà bi ñuy def vendredi désabonnez-vous de la TFM télé fenal Macky la nekku fi pour yéen bu ñu leen jëlee rek c'est pour vous piéger et vous faire Pape Ngagne c'est un mercenaire comme les autres journalistes de la TFM c'est tous des mercenaires ndax xam nga barki dem Ndiaye Pape ngañ moo fi jël Madiambal Diagne mu si mu yàq Ousmane Sonko lu ko neex ay sos ay fen ay tappale te pourtant Pape Ngagne xam na ne kër Madiambal Diagne la ñu reyee ñaari soldats yooyu Fulbert Sambou ak Didier Badji désabonnez-vous de la TFM voilà désabonnez-vous kenn mu mu dem seetaan TFM bu ñu bëggee seetaan El Malick ñun xam nañu nu ñuy def ba dégg El Malick ndax suñu xarit la muy nit ku baax un très bien bon communicant voilà léegi gars yi ma ñëw waxaat leen encore une fois rek dama leen di ñëw ne Ndeye Khady Ndiaye Ndeye Khady Ndiaye yàlla na fi yàgg lool te wér te mu dund yàlla aaral ko njabootam yàlla sàmm ko sàmmal ko njabootam yàlla bàyyi ko ak jëkkëram ju baax ji Ibrahima ñuy ay nit yu baax ay nit yu jub ay nit yu diiñ mbaam nag doomam rek la mën a jur waxoon naa leen fii ne leen El Hadj Ousseynou Diouf non non non non bandi bii El Hadj xawma lan Ousseynou la wala El Hadj Diouf El tout simplement waxoon naa leen ne si kër gi giñ ma mayee soxna mas nañ ko faa may soxna donc du xame man ak El Hadj du kamante bu ndaw la ñu xamante dañu xamante mel ni tuxkatu poon ak laxaskatu poon comme ni ko président Ousmane Sonko di waxee El juuf Diouf waa kawlax yaayam ca marché Kaolack bala ne woon falaa mën yem am na foo xam ne nag duma fa yegg par respect à la famille waaye El Hadj judduwul sax ci buumu sëy El Hadj Diouf ci lu baax nee naa beneen exemple bi ma leen di jox El Hadj Diouf mel mii gis jabar jamu mujjee takk te mu tudd Maam Jaara jabar jooju nee jabaru Souleymane Ndeena Njaay la woon cousin am de sang son cousin de kooku El Hadj dafa daan dem këram di doxaan jabar di doxaan jabar ba tasloo jabar sëyam mu takk jabar ji nee naa leen El Hadj Diouf client bu mu am kom avocat benn bi benn jigéenu mauritanienne bu nekk fii la ak ñun Amérique ci affaire Adji Sarr bi aussi dégg ngeen ko ndax gën bi génn na dafay génnee banaanaam bu boobu teg ko sur la table naan la ma macal di ko yëngal muy yuut nee naa dafa am feebaru xel yàgg naa leen koo wax dafa am feebaru jigéen am feebaru xel nee naa leen ca këram dafay dàqante ak mbindaan déglu leen ma mbindaan yi nekk ci biir kër gi dafay dàqante ak ñoom ba ñuy faxastalu di daanu mbindaan yi laa leen wax patron bi muy jabaram toujours mbindaan yi dañ koy boole ak El Hadj Diouf El Hadj Diouf du nit yéen Sénégal bu dul yabeel dossier buñ la moom mooy avocat war nga gàddu say dëbës te nga xam ne y'a plus du sérieux nga dem sa yoon Adji mii daw na kër El Hadj daw na El Hadj ndax bëgg koo tëddee bu ko tëddeewul ba pare Gabriel Kane dégg fii li mu yàq El Hadj Diouf seen dossier bii kenn moo ci des kooku di Françoise Hélène Gaye Françoise Hélène Gaye nee naa leen ñu nag mooma dëkk Amérique amul dignité amul ngor amul respect amul xam-xam elle a soixante ans presque est-ce que bu ëppul sax maanaam dafa dem ba taati peer ndax moom Allemagne lañ ko tàmbalee def lu dul naka si noonu ba sayam tas fa mu daw fi mu ne nii laajte leen leen laaj jëkkër ji Françoise Hélène Gaye mujjee sëyal balaa muy taxu si Amérique laaj leen ko jëkkër ji muy sëyal nii Amérique daf ko bëgg a dafa amul moyen rek ndeysaan ci affaire u Adji Sarr bii la ko yàlla dimbale mayaat ko lifeline maanaam mayaat ko lu mu dundee donc ci la préparé boppam ne voilà affaire u Adji bi moom sama bakkan laa ko ci teg waa idi Idrissa Seck njomboor la àndaloon waa idi daan ko fi yaakaar ne mooy seen saagakat ñu kontaan lool ne am nañu Hélène ma wax leen ko ci suuf ma ne leen ndaw sii ngeen jël yaakaar ne àndandoo la ëllëg ak sibir ànduma ak idi nag ma idi man xam naa ne idée dàq ci àdduna bi idi baaxul waaye nee naa leen Françoise Hélène mii ngeen àndal benn waa idi bu nekk fii ci Amérique ñu daggal ko billet yóbbu ko Sénégal jëlal ko appartement mu ne day campagnal Idrissa Seck jëlal ko ay garde corps ma ne leen gisagu leen dara war na leen dem na yoonam wax leen ko nee naa leen bu ne connaissez rien et vous allez du nit kooku ak mbaam xuux ak mbaam sëf yëpp benn lañ donc les Sénégalais Il est temps de nous concentrer sur l'essentiel te ñu xam ne Macky Sall ak ñoñoom c'est pas des personnes qui sont dignes c'est pas des personnes qui respectent les Sénégalais c'est pas des personnes qui feront du bien pour le Sénégal parce que gis nga Sénégalais bëgguma ne dafa bëgg ku ko nax waaye est-ce que bëgg na ku koy wax dëgg senegale est que ñun xam nañu li ñu am ak président Ousmane Sonko est que ñun xam nañu li ñu yàlla may ci Ousmane Sonko dafa am proverbe boo xam ne bindal naa leen ko démb mu ne soo ñàkkee sa alal dara du la dal dina am lu la dal tuuti waaye boo ñàkkee sa dignité tu as tout perdu te Sénégal ci tànk yooyu la toll fi mu toll nii Sénégal am na benn minorité boo xam ne ñoom dañoo ñàkk seen dignité parce que man mënumaa comprendre doomu nit ku baax taskatu xibaar ak responsabilité bi nga am ci côté yàlla ñu jox la ab population ngay fen di dajale di duul di dajale te xooluloo ci dara yow lenn rekk nga ci xool mooy alal alal bi nga xam ne bu la lewul sax boo ko lekkee danga ciy jële ay feebar yoo mënut a faj ci loolu ngeen di dox sawaay TFM Youssou Ndour moo ko moom Youssou Ndour xaritu Macky Sall benn bakkan la ñu ngi déggoo bis bu ne ay doomam ay xaritam ay xaritu doomu Youssou Ndour lañu ak ay doomu Macky Sall c'est des amis c'est des personnes qui sont inséparables Seneweb ki ko moom salaam la tudd salaam le DG du Sénéweb am naa numéro Salam je le connais quelqu'un que je connais très bien fu Macky Sall di dem ci àddina ñoom ñooy ànd fu Macky Sall di dem ci àdduna bi ñoom ñooy ànd il faut Sénégalais yi ñun tamit ñu mën a yeewu lan ngay seetaanee Seneweb ba fay gis lu la naqari Seneweb Macky Sall la fi nekkal patron Seneweb salaam fu Macky di dem ci àdduna bi day am moom billet première classe mu ànd moom moom ak Macky tànk la ak tànk il faut ngeen yeewu salaam la tudd waxuma leen salaam Diallo de waxuma suba Sénégal yëpp dem publier salaam Diallo déedéet salaam la tudd le DG du Seneweb Salam Ndiaye quelque chose c'est lui le DG du Seneweb daf ma intéressé wul rek mais il m'a donné son numéro cent mille fois mais du ay nit yoo xam ne man damay jokkoo ak ñoom mais xam naa leen Lëndëmal TV Dame Dieng moo ko moom Dame Dieng lenn rek ndeysaan benn naqar bu ma am elle a notre Adja nationale yéen a ngi fàttaliku Adja ndeysaan ah ci laa xool rek ma ne Sénégal amatul valeur Dame Dieng moom moom Lëndëmal TV Dame Dieng booyu Idi la woon bu yàgg après mu wor Idi ànd ak Macky sàll mu tabax ay immeuble ci xaalisu tappale ak fen ak sos léegi ñii sénégalais lan moo tax ngeen leen di seetaan bañ leen di def lu leen naqari loolu laa bëgg a xam nit koo xam ne yow xam nga ne amul dignité nit koo xam ne yow xam nga ne jubul nit koo xam nga ne koo xam yow xam nga ne baaxul mais looy xaar ba kooku di la def lu la naqari sénégalais yi nañu am xel tu a vu ce dossier on vous avait dit avant que le dossier waxoon nañu leen ko avant te démb yàlla firndeel na lépp waxoon nañ leen ne amul benn vidéo wala benn audio bu ñu yor wax naa leen ko waxaat leen ko waxaat leen ko barki démb ñii bu ñu amoon audio ak vidéo bu ñu yor du ñu xaar jugement dañ koy génnee Seneweb lañ koy jaarale jaarale ko TFM di ko génnee chaque jour ñu génnee benn amuñu dara lancé leen défi El Hadj Diouf mën a duul ne leen ko ñun nee ñu bu amee vidéo ak ojo mais ñoom am nañu ay télé am nañu Seneweb am nañu euh, maanaam euh, TFM nañ ko génne waaye yor sa téléphone rek ne voilà nee naa juge bi preuve yi ma yor fii preuve preuve yi ma yor fii nee naa juge bi mu tegal ma écran <laughs> ñuy tourner film nee nañu ñuy tourner film noonu mu ne preuve yi ma yor sama téléphone bi fii El Hadj Diouf ñun bi ñu yoree preuve ci yow génnee nañ ko génnee nañu preuve boo xam ne yow yaa ne Gabriel Kane mu màccal la sa samba àllaar muy banaana buy nelaw nga koy yëngal nee na mënuloo woon même bande tu ne pouvais même pas bande mënul jóg taxaw nga naan màccal na ah gis nga ko sama séeréer bi gis nga sama séeréer te mënul jóg taxaw donc ñun amoon nañu preuve yi te génnee nañ ko yow boo amee ay preuve génneel waaye ay sosu neen ay fenu neen ngay ngeen jàpp sénégalais yi otage di fonto sénégalais yi di rey sénégalais yi di jàpp doomu sénégalais yi di leen emprisonné Macky Sall di wër ci dëkk bi boo ko waxee mu naan la booy joolaa bi dinaa ko jàpp booy joolaa bi dinaa ko def nii booy joolaa bi dinaa ko def nale mu indi ethnicisme ci biir Sénégal jël ay mbokkam alpulaar mu def leen dans toutes les positions stratégiques cour d'appel cour de cassation justice ay euh, euh, maanaam lépp loo xam ne ci senegal chef commissaire police commissaire euh, gendarmerie commissaire commissaire généralu armée généralu nangam généralu polis nga jël ay ay ay xaal pulaar nga teg leen dans toutes les positions stratégiques du Sénégal nga taal bëgg taal Sénégal te doomu alpulaar yu baax yi nekk fi président yu mel ni yow ñoom ñooy créer ay guerre civile ci ay réew waaye guerre civile du am Sénégal Macky Macky dañ lay jàpp te bis buñ la jàppee dinañ lay yëgal ne ki lay atte sa xaal pulaar lay doon yow juge bi lay atte yow aal pulaar lay doon waaye day doon aal bu jub bu diñ ndax am nañu ay alpulaar yu baax bari nañu ils sont nombreux waaye réew mu takk ci àdduna bi sa moroom yi ñoo ko taal nday xadi nday xadi bu ma mënoon woy woyal la bu ma mënoon tagg taggal la say maam bu ma mënoon bu ma amoon milliard tey ma may la ko bu ma amoon avion ma may la bu ma mënoon wàccee asamaan si may la may la parce que tu es yow mënoon ngaa dem jëli ay milliards ci Mamour Diallo defuloo ko nga takk sa sër mu dëgër nga ne dinaa wax dëgg te yàlla rek tax bu may xañ sama lépp dina ma ko xañ waaye du ma ñàkk sama dignité Ndeye Khady Ndiaye Sonko sax ci conversation mooy leen di won xamantewul ak Ndeye Khady